ñi xam nañ ko insouciance bi nekk ci ñoom aussi on va en parler parce que ku nekk di def yenn affaires yi ñu lay filmer mën naa comprendre kuy def lu bon sax di di làkkatu parce que mm-hmm. yàgg na fi mm-hmm. loolu yàgg na ci biir réew mais léegi xale yi dañ koy def ñu leen di filmer ñu xam ne ñu ngi leen di filmer te loolu dérangé wu leen waaw Safia muy thème boo xam ne euh, thème bu am solo la mm-hmm. mais euh, am na loo xam ne tamit nañ ko bañ a tëb mooy euh, Sénégal boo waxee sexe mm-hmm. c'est tabu mm-hmm. te loolu bokk na ci loo xam ne jur na ay jàngoro yu bari Sénégal parce que certes yàlla moo ko wax boo sëyagul euh, waroo xam jigéen boo dee jigéen waroo xam góor mm-hmm. mais si tu prends quatre-vingts wala cent personnes ñu taxaw nii ñi la ko si mun waatal du bari de ñoom ñëpp <laughs> bi ñu nekkee xale jéem nañu wala am na lu ñu def pour pourquoi ça léegi dama dégg sek mu ne que dañuy yar daan wax jigéen bul jege bul def li muy luy dëgg mais est-ce que Sénégal yar nañu góor ñi si préserver seen bopp ak xool kañ la ñu war a xam jigéen parce que loolu day dem bay feeñ sax ci sëy Sénégal je crois que bu ñuy wax éducation rek tout est basé sur la femme mm-hmm. mais on n'éduque jamais les jeunes garçons mm-hmm. ne leen kat àdduna boo ci kiiyee nii ak nii ci domaine kenn du leen ci éduquer mm-hmm. l'autre fait mooy xale bu demee ba am fit di def yenn yi nañu xoolaat des fois toogaayu kër gi les parents parce que man je ne vais pas dire que loo xam ne la Safia dina ma bett wala loo xam ne la daf may def choc wala loo xam ne daf may non xamul tax naka la suñu société tëddee actuellement lan la ñuy wone ci télévision yi xale yi di koy gis lan la parents yi ak yenn nit ñi ci biir kër di comporté woo ci yenn kanamu xale ba loolu di pousser loo xale bi mu bëgg ko découvrir dans les maisons da ngay dem si kër sa cousin nekk fa nga génn wala sa kii nga jël sër bu gàtt woddoon yi say tànk di feeñ xale bi toog di xool mais l'enfant buy xaw a màgg à tout prix dina bëgg parce que góor góor nga quoi góor yàlla moo def si moom loo xam ne des fois pulsion am ñëpp la quoi dafay gis benn affaire mu bëgg a tester mu bëgg a xool dañ kump mais su boobaa mois qui te parle je me rappelle ba 17 ans pour sama papa bàyyi woon ma ma génn problème la ba 17 ans laa lay wax. sérieux ñiy seetaan si kaab ñi ngi xam nañ li may wax pour pour nit seet si ma aw moon sax fit bi mais parce que parents yooyu dañu amoon jot si seen doom mais léegi les parents amatuñu jot si seen doom. donc majeure partie des responsabilités yi incombe des parents te tey la gën a graaw bu njëkk ba sec mi ngi wax léegi dañu war a sanctionner xale bu jigéen bi nga xam ne elle est mineure pourquoi la sanctionner yow kañ bañ nañu ba ne mineur bul jege bul laal mais ñan ngay gis ñoo xam ne léegi ñooy jël ay mineur di leen yóbbu bëgg leen sàkku des vieux xale yooyu di def yooyu safia est-ce que nettali nañ leen seen enfance lan la ñu dal seen biir kër wala lan la ñu dal feneen y en a qui ont été sexuellement violentés duñ ko ñemee wax am na si ay jigéen yoo xam ne dañ daan tëdd si kër gi foofu ñu leen di def du n'importe quoi ñu fay jógee sax yóbbaale wu ñu woon seen ndaw si kër gi ñu nekkoon est-ce que yooyu yëpp ñun société bi dinañ ko jàngat pour woote ay milliers di wax xale yi nga xam ne dañu am problème si biir kër yi si domaine u sexe est-ce que dinañ leen woo pour remonter leen pour wax ak ñoom à bas yu bari duñ ko def parce que dañuy ne c'est tabou hein duñ ko def xale yooyu nag bu ñu demee ba màgg am na loo xam ne seen yaram daf koy laaj am na loo xam ne dañ koy bëgg a découvrir am na loo xam ne dañ leen koy doon def dañ koy def sans pudeur duñ si xal dara parce que dañuy ne man lii def nañ ma ko ma nekkee xale ah xam naa ko mais bu ñu toogee nag dem bay filmantente ba affaire yi di tas si réseau yi loolu li ko waral man pour ma ton si dina metti trop parce que loolu moom je crois que animaux yi sax defatuñ ko parce que c'est des vidéos yoo xam ne qui von rester pendant vingt ans quarante ans sur le net ces fii yi koy def góor sax boo waxee Sénégal ñu ne la ah kii góor naa moom dara du ko fekk si góor boobu dina dem ba nekki bàyyi dina dem ba nekki maam vidéo yu taxaw say waa kër wala say mbokk wala ñi nga xam ne xam nañ la dina leen kii kat yaa ko doon joué bi nga nekkee xale donc il faut xale yi yeew il faut xale yi xam ne ñoom ñooy màgg ëllëg am yoo xam ne waruñu ko def am yoo xam ne buñ ko defee seen àdduna yàqu na et man je sais genre vidéo yooyu pour les jeunes duma ko xool j'ai pas envie de regarder mais lieux yi ñu koy defee kan moo leen koy luwe kan mooy loué xale yi kër yi nga xam ne dañ fay dem di def seen sexe téeb ak affaire yooyu est-ce que ñooñu dinañ leen sanctionner lourdement pour nga xam ne ëllëg xale yi foo ñëwaat bëgg a def ay party wala bëgg a def nuyu pas affaire yooyu ñu ne la écoute non mais ça n'existe pas au Sénégal moo tax ma ne dëkk il faut dafa am nu mu war a doxee dëkk chaque fois ma koy répété du ñu bàyyi xel si ma wax tant qu'il y a pas des sanctions sévères qu'on punisse sévèrement ces genres de choses du fi génn parce que xale yooyu amuñu 18 ans ni ko Safia waxee 15 ans 16 ans tu n'as pas droit jënd cigarette tu n'as pas droit jënd sàngara bay dem luwe kër ngeen fay tasee donc man si j'étais le procureur wala man am dogal si dëkk bi ñi leen di jox kër yeeg ñi leen di jox loin bi au maximum 25 ans laa leen di tëj wala 30 ans je m'en fous parce que fekkee am na ñu ko dégg. su boobaa xale yi dinañ xam fan la ñuy dem xanaa duñ def toog si mbedd bi di filmer seen ay bopp si talibeek wala si mbedd donc loo gis Safia organisation la te organisation ba sa biir kër ga lay commencé am na xale yoo xam ne nag amuñu jom amuñu kersa ragaluñu dara amuñu benn pudeur dara ragaluñu ko mais ñi nga xam ne mun nañ leen rectifier ñi nga xam ne mun nañ leen yedd ne leen li ngeen nekkee xam leen ne ëllëg di ngeen ko rëccu bu metti veillez à ça te nañu contrôler tamit li nga xam ne mi ngi daw si télévision yi man am na yenn scène yu may gis si télévision yi ak li xale yi def benn la mënuma gëm ñuy jouer ay film ku jigéen ki war doo serviette ba fii mel nu ko neex jóg di daw wala sëgg di def cuuraay yooyu mais yooyu c'est pornographie la boo waxee ñu lay ne non dañu bëgg wane loo xam ne pour ëllëg kii du ko def affaire yooyu c'est archi faux lu bon lu bon la lu baax lu baax la lu bon tegg leen fële wane loo xam ne xale yi bu ñu ko seetaanee am luñ si jàng mais je crois que Sénégal loolu mënu fi ne parce que je crois que li fi ne mooy xaalis bi la ñuy njëkk a xool ak yeneen ak yeneen pour soog a xalaat éducation xale yi mais war nañ indiwaat éducation bi nga xam ne man en nos temps yi ñu daan def si école yi jàngalaat ko xale yi je crois que su boobaa dina am tuuti changement Safia. merci beaucoup Ben bonsoir Sophie. ma ma dugg di directement lii de punition la nag. lii ah, moom punition la. parfait donc maa ngi leen di nuyu les retardataires ont toujours tort donc maa ngi nuyu ñu ma bokk plateau bi di nuyu les téléspectateurs di excuser wu pour retard bi salaamaaleykum. Euh, ñu euh, dem directement ci li ñuy waxtaanee dégg nga benn lu mu wax par rapport a responsabilité yi ñu war a euh, partager entre les parents la société elle-même ak ces jeunes là qui s'exposent tous les jours ci yenn problème yi. société la boo xam ne nag Sénégal société buzz la ñu toll c'est-à-dire ay kii moo téye buzz bi kii moo wax lii nit yi lii des choses se passent on en parle une fois deux fois une journée deux trois après on passe autre chose ñoom sax dañuy xam ne craindre ñu dara par rapport a ce qui passe parce que seeni moroom jaaroon nañ fi génne ay vidéo yu mel noonu ñu coow ko ñaar ñett ñeenti fan après c'est c'est bon c'est on passe à autre chose ñoom it suñ koy def du ñu xalaat sax ne dinañ am ay retombées yu négatif comme li benn wax parce que amul benn sanction bu importante buy daanu ci kaw ndoddu xale yooyu wala ñi nga xam ne ñoom ñoo ni loué appartement yi. merci beaucoup madame Diallo euh, comme ni ko ñëpp waxee ah ko waxtaan bi am na solo bi am na solo trop. Mhm. parce que dafa nekk euh, un mal boo xam ne foo ko natt rek passé na fa. passé na fa. te mhm. le mal est profond parce que comme ni nga ko waxee sànq. Mhm. Euh, yegg ci toll ci def naka sunu noonu rek déjà baaxul boo ci boolee nag di di di di filmer sa bopp yow. Mhm. ba muy fiwiti fiwiti wu. Mhm. c'est encore beaucoup plus grave. man ma gëm ne. Euh, muy ñu góor ñi muy ñu jigéen ñi surtout nag ñu jigéen ñi. pour un peu répondre à benn. Mm-hmm. sànq sax wax nga ko sa biir wax am na benn moment yaa ngi développé ne góor góor la mm-hmm. non dama ne nit ñi ñooy ne góor góor la waaw nit ñi ñooy wax góor góor la mm-hmm. effectivement c'est vrai góor góor la mais li ma bëgg a wax mooy da nga am question boobu posé sànq question bi nga posé mooy effectivement euh, pourquoi éducation bi gën a gën a gën a gën a tar ci jigéen ñi que góor ñi parce que effectivement c' est l' élément à protéger. jigéen. c' est l' élément yàlla moo ko njëkk a protéger moom xam na lu tax. moo tax mu ne muural sa lépp ba mu des sa kanam ak sa ñaari loxo. moom moo ko njëkk a donc pour wax rek ne. non seulement yàlla moo njëkk a mais comme souvent euh, xëy na du lu neex yëpp mais c' est la li ci jëkk góor ki jëkk ku jigéen ki merci xam nga euh, benn. ci yàlla dogalee nga am xale lu góor waxambaane mu dem def naka sudul noonu ak ku jigéen ñoom ñaar ñëpp eh, li ñu def jaaduwul mais ku jigéen ki mooy jël indi toog wetu ndeyam wetu baayam maanaam li ndeyam ak baayam daj ci moom diggante ñu ñu koy loolu di ko tegu mu war a lor di ci ëmb di ci imbi ba nga dem nekk ci xottu gerte ba keroog muy mucc xale bu góor moom boo demee boo naa mën a jaaree di fubal donc donc foofu laay forcément du doon benn même sur le plan sanitaire c'est pas pareil. Hmm. laal euh, jote ngaa koo warul joteel ba yàlla def mu mën na lor. Hmm. yow bu la neexee da ngay périer yaa ngi na ataaya wala nga dem géej plage. mbaa nga bañ. Hmm. merci. mbaa nga bañ même même man à dire même. daw normal. waaw nga bañ au moins c'est tout. mais li ma mooy maa maa ngi ci ñàkk jig bi. ndax ni nga ko waxee bu dee précocement nga ko jël ña ngay fexe d' abord yow noo muccee. sa bakkan parce que sama bakkan ndax da nga nekk en danger. Mhm. lu tax parce que jël une grossesse précoce boo xam ne. effectivement bakkan xaj na ci. Mhm. déformation xaj na ci. lu ne xaj na ci ba keroog ngay mucc loolu donc yow li ci li ci li la ci njëkk li ci njëkk kilo ko teg yow. jiwu ci yow bi nga xam ne ta vie est en jeu pendant neuf mois. mais la li ma la bëggoon interpeller foofu. Mhm. nga foofu xale xamatuñu protection ak xamatuñu naka la ñuy def pour bañ a ëmb. en kay fa si. dafa wax rek fa si benn El Hadj wax na ko sànq ça ça m'a toujours paru effectivement paradoxal mais pour njëkk commencer d'abord euh, ci ci famille bi ci famille laay njëkkee man muy la responsabilité parentale parce que xale avant muy génn avant muy jàngi avant muy filmer boppam avant muy def quoi que ce soit lépp il y la responsabilité des parents d'abord parentale muy fondamentalement yéen ñaar yéen a am responsabilité bu toll ne euh, bàyyi bu xëyee wuti na yaay wattu njaboot gi parce que noonu la waroon demee exactement parce que se ni ñuy dund ñun. Mhm. déséquilibre social la. déséquilibre social boobu mooy bàyyi xëy na dem wuti yaay xëy na dem wuti njaboot gi sont laissés à eux-mêmes ba keroog ngeen di revenir c' est ça la vérité parce que bu njëkk bàyyi da daan dem wuti. a toog yaay toog wattu njaboot gi. Mhm. la mu mën a faj mu faj ko. la mu mënul faj mënul la ba sa bàyyi yow. parce que yaa ngi doon fekkee mooy def doxi doona comment. yooyu moom taxul ñu bañ ne xale yi ñoo. papa ak yaay on peut pas stagner moo tax ñàkk stagnation ñàkk stagnation boobu noonu. dafa am ay conséquences benn. mais le monde avance quand même. oui oui je suis d' accord avec toi Ben le monde avance mais il peut avancer mal. vraiment non. xam nga maanaam ma ma ma ñu ma ñu ñëw. xanaa maa ngi ñëw. ok vas-y le monde avance je suis d'accord avec toi mais mais reconnaissons que avancé bu nekk. Mm. am na des côtés fastes et des côtés néfastes. Mm. c' est ça la vérité. comme avant tamit amoon na côté face ak côté négatif. oui mais mais mais waaye avant mais boo boo mënee avancé kay bàyyi nga avant yow. non non mais je veux te non non je veux te dire que bu fekkee da nga nar a basé wu sur que xale yi ñu ngi def loolu parce que jigéen ñi dañuy liggéey c' est ça que tu veux dire. non non y' a problème parce que y' a dit que papa moo daan liggéey yaay toog si kër je te dis que loolu taxul xale yi def lu bon. waaw non c'est que euh, euh, mais encore une fois damay nekk di décortiquer. Mm. li nga xam ne mooy nekk les éléments favorisants. Mm. à tort a raison. Mm. wala effectivement dox déggoo ma ne dox doxu àdduna moo ñu jëmee foofu mais dox doxu àdduna boobu aussi il faut ñu am courage assumer ko parce que quand loolu mooy dëgg papa da daan xëy dem wuti parce que moom la ñu sas dundal sàng faj dëkkal et ainsi de suite yaay toog wattu njaboot gi li mu mën mu faj ko. li mu munul munal la ba sa bàyyi ñëw c'est ça la vérité benn mais bu yaay fekkeetul fekke fekke fekk fekkeewul euh, yàqu-yàqu fekkeewul kañ nga wàcc ya euh, wàcce nga woote par exemple woote nañ seen nga depuis quatorze heures yaa ngi si kër gi dix-sept heures bu ko yaay bu yaay bu yaay ñëwee ñëw moom dix-huit heures lu xam kañ nga ñëw yow maman boobu xale yi daal ñu def daal mais si mais dafa gën a jéggi dayoo benn dafa lay bokk na ci li nga xam ne day laay waxee mais bu yaay toogaan daan wattu li mu mën comme li wax def kenn kàttanam ba fi mu yem ñu ne ba sa bàyyi ñëw c' était moins grave que maintenant donc man muy muy muy un deuxièmement toujours dans le cadre familial bu njëkk benn da nga daan am nga jox ci moom mu tegu ci yoon bu baaxul yow yow yaw yow frère yaa koy corrigé yow mm-hmm. yaa koy lijjanti parce que lépp loo ko souhaiteel mooy toog ba tey jii ñu ne sama sœur la ñuy maye récep fekk ko réception ba c'est une fierté pour un frère mais tey boo laalee xëy na sax du fa fekk bàyyi yaay ne la du ma du juralu ma la baam gannaaw si tey ko sa loxo laalati te bu njëkk li pàpp mën naan yaay daan def ci doom mm-hmm. pàpp daan ko def ci doom loolu la frère amul droit man gis naa sœur bu frère am jubbanti bu porté plainte yóbbu kaso ñu tey ko fa pendant soixante douze heures xaw nañ ñu jàllale mm-hmm. pour avoir corrigé sa sa sœur parce que tout simplement remarqué ne pendant une semaine bu du ñëw du dugg ci kër gi avant deux heures du matin yow fooy nekk ba heure bi coow li ci ci jàppal bàyyi dugg génn xale bi xëy suba dem police porté plainte ñu téye frère garde à vue il a fallu de peu intervention bu euh, njaboot gi ak ak ak yenn dëkkandoo yeeg ak yenn chef de quartier yi pour ñu libérer ko sinon dañ ko doon jàllale pour avoir corrigé sa sœur te njëkk détaillé la woon xam ne effectivement prenant ak sangul sa daar la bëgg loolu amatul léegi bi ci li ma gis man toujours dans le cadre familial muy comme euh, li nga wax sekk bu njëkk dañ daan dëkk ci koñ sama doom bu jigéen nga jottu ci moom loo xam ne nii safar la yow yaa koy jubbanti dëgg la su ñëwee na ma sama papa sekk de moo ma wax nangam wala moo wañaat sama nopp nga dolli ko ci tax xam ne effectivement sekk bu la fekkoon ci lu jub du wañaar sa nopp mbaa du la ko soñe wax ndax bu la waxee nu ko doon mooy li ma n'est-ce pas du la ko sañ a wax wala bu la ko waxee ko ci tey nag dama naan la sekk pourquoi loo loo ñëwee sama doom si tey bu ko sa loxo laal bi mm-hmm. loolu aussi bokk na ci li nga xam dafa sooxe si li nga xam ne mooy yaru xale yi mu ñëw maintenant ci li nga wax sànq sa introduction extrêmement important Benoît souvent daf koy daf koy faral di procès souvent oui parce que man mënu ma comprendre que diw xale la mm-hmm. mineur mag yi nga xam ne yàlla daf leen xiir ci xale yu ndaw yi loolu ko boobu réglé nañ ko ndax boo ko boo ko defee yoon yoon jàpp parce que am na loi bu ko mm-hmm. yow yow mag mm-hmm. boo la d'ailleurs dañuy bañ ba ne la une mineure n'est jamais donc même bu nangoo sax nanguwul kon xam nga loolu réglé nañ ko mais xam nga lan lañ réglé ko mm-hmm. moom mineur bi ak am la liberté dugg ci centre de planification familiale en tant que di wut effectivement loo xam ne nii comme pour répondre à benn dina lëkkaloo moom. ci loo xam ne ni du ci jëlee alors. lu ko la ko ci fekk moom. da ko ko ci fekk xamu tax. waaw xamu tax c'est-à-dire comme ni ku ko ci yàlla xiir yow mag mag mu yàlla xiir ci xale. Hmm. yow jàppal ne cas boobu rek ko ndax yaa une loi buy wane ne boo ko laalee yoon dal sa kaw. waaye moom bi nga xam ne gone la. waaw treize quatorze quinze am na possibilité la liberté dugg ci san de planification familiale. Mm. et paradoxalement mm. ku la laal mm. ma dal ci kawam. waaye dinaa la jox loo xam ne boo laalantee dara du la ca fekk. li ma bëgg a wax mooy. man c' est c' est paradoxal. je n'ai pas vu une une situation aussi aussi paradoxale que ça. rek la fi bàyyi fa. exactement mi nga xam ne yàlla xiir na ko ci xale. yoon day dal ci kawam moo xam mu feeñ moo xam ba keroog mu koy def ba keroog muy feeñ yoon ne ko jàpp ràpp ci kaso mais moom mi nga xam ne gone la hmm. am liberté wu dugg def centre de planification familiale dugg euh, amoo droit rejeté ko amoo droit gàntal ko amoo droit dàq ko amoo droit téléphoné papaam amoo droit téléphoné yaayam kon moom la ñu protégé wu moom mi am liberté wu dugg jënd ngeen naan hmm. wala sax à la limite même c'est gratuit ah, moo tax effectivement question bi nga solo il y a paradoxe quand effectivement une mineure peut, peut se permettre des euh, une telle ko neex dugg moo tax moo tax ma gëm ne. Mhm. moo tax ma gëm ne bu ñu gëmee ne ku la laal yoon dal ci kawam parce que jàpp nañ ne tolloo koo foo ko war a defee. Ah. heure boo posé acte boo xam ne war naa war na njort ne lii kat loo war a defi la. Mhm. mu am sax même bu doon tentative xaw ma nu ko waa yoon yi tuddee maanaam li ma bëgg wax mooy su ma su ma jógoon tey ne dama lay rey. dama lay faagaagal. Euh, te antuwul. Mm-hmm. dinañ ma jàpp man pour tentative de meurtre. ndax dañ l'intention vaut l'action. exactement xam ma la ma wax mm-hmm. mais xale bu nga xam ne aussi gëm nañu ne. Mm-hmm. protéger nañ ko protection bu toll ne. moo wër ku xaaral ma ñëw seet. protéger nañ ko protection bu toll ne ku jëflanteeg moom yoon dal sa kaw. parce que jàpp nañ ne tolloogul fu muy fu muy sëyee. kon bu duggee ci plan ci bu duggee di wut di wut loo xam ne ni pour sëy la.

ce n'est tu ne tu n'es plus n'importe qui. Mm-hmm. te dafay am ci école yi. mës naa dégg benn jour euh, Sophie di ko wax. Mm-hmm. mais ñoom bi ñuy jàng. xel xalaatul woon yu rouge à lèvres. et c'est avec juste mm-hmm. parce que ñaar moo mën a nekk. parce que parce que euh, kenn mënul di xalam bi okk. da ngay jàng day ne sa bopp nga jàngi. wala mën a kinaa nekk sa bopp nga bàyyi jàng bi dem defi mën a kinaa wala nga góorlu ji. mais tu ne peux pas voir une jeune fille. 14 mm. 15 mu dugg ci école nga yaakaar ne professeur la parce que dañ teg greffage bi gudd yor téléphone bu cher daal di tol effectivement tooj ay weenam yor yor portable euh, tooj ay weenam di di di jaagal jaagari romb surveillant romb romb censeur romb proviseur romb tout ñun de jamono bi ci toll sañu ñu ko woon. am nga loo daan duggee sax mal fagote sax. Euh, surveillant bi moo la eh dinaa door appelle ma tes donc. Mm. voilà donc ma li si des ma def ko deuxième phase. deuxième am na solo parce que damay doog a tàmbali rek xam nga yii moom bu ci wax sama sama sama. da nga excité. merci beaucoup. démarrage bu baax mais <laughs> yow daa tàng. Euh, euh, lu am solo loo xam ne instant ñu ngi nekk di évoluer bu baax baax ci société sénégalaise. mi ngi mm. tax xale yu bëri euh, pour ne pas dire dañoo ñàkk jom léegi mais amatuñu. amatuñu lu ñuy jom amatuñu lu ñuy ragal amatuñu benn kersa par rapport ak par rapport ak lii am parce waaw parce que tamit nag kaam wax la nag de li ñuy gis seen mag yi rek la ñuy def de daan ci ñëwaat léegi tonton Moussa a ndeysaan maa ngi maa ngi nuyuwaat ñëpp euh, chaque jour ndeysaan su ma toogee balaa may démarrer dugg ci waxtaan rek dama naan euh, maa ngi démarrer ak di sant sama soxna toujours moom laay démarrer waxtaan mu nekk lu ma amal solo ndax combat bi moo ci jàpp ba fi ma tollu tey li am solo nag mooy nañu waxtaan te ci biir waxtaan bi nañu tànn dama bëgg laaj ba pare balaa may wax ndax tey la ëmb am yàgg na fi ndax tey la sàkku am yàgg na fi ndax tey la xale bu góor ak xale bu jigéen dem ca ginnaaw sàkket bi di sàkkonte yàgg na fi amoon na fi nekkoon na fi waaye fësul woon teg ci dañ ko daan nëbb ba teg ci boo bëttaan ñaar yow mi leen bett ci yow lay yem ak ñoom nga jàpp dóor faj ñu nem nga regle ñu ni nem nga jàppal leen ko ñu jàppal la ko ñu am kersa bu ndox sa diggante ak ñoom ba abadan dootuñu fa jaar ci jamono jooju lañ nekkoon jamono ji nga xam ni dara fësul jamono ji nga xam ni lépp sutura la jamono ji nga xam ni balaa ngaa wax ndax dañ wax balaa nga koy wax ma nga ajana waaye bu fa xasee ba jóge munoo fexe ba mu delluwaat dañ daan diisoo ci wax ju ñaaw ju war a génn ci lépp tey nag àdduna bee évolué jóge ci fii dem ci fii te ñun ñoo ko laaj ñun ñoo ko doon ñaan yokkute ñun ñoo doon ñaan avancement ñun ñoo doon ñaan tele ñun ñoo doon ñaan appart